salaamaaleykum salaamaaleykum ñu ngi leen di ziyaare bu baax waa Kër Macky yooyu wax namm naa leen fan yii liggéey ba ñu xaw a téye rek ñu ci berté beeg ñoom seen yooyu ah déglu naa Ousmane Sonko léegi man APR la cent pour cent képp ku ma xam xam na ne man APR la cent pour cent Macky laay dàkkanteleeg man bañ ne ba sax sama tur moo moo ci ne. waaye euh, man de à partir jour bi tey bu la neex ngeen bàyyi bu la neex ngeen génne ma nag waaye en tout cas à partir jour bi tey dem naa ci Ousmane Sonko parce que dëgg rek moom bu dee dëgg rek dëgg la yàlla bëgg Ousmane Sonko li muy wax nii man dëgg yàlla li ma déglu tey man frappé na ma quoi laal na ma. waa kër Macky nag maa leen di béggee di len jaajëfal lu bari man Macky cent pour cent la cent pour cent waaye nag comme Macky du dem di dégg li ma di li ak li ma gis fii actuellement pour le moment nii man mom adhéré naa ci ci ci jomaay li ma wax Pastef sax jomaay laay wax waa kër Macky nag maa leen di jégalu di len jaajëfal lu bari di len wax maa ngi depuis 2012 ba nëgë ni maki la 100% pour nak ku gis nan mom di nga xam ne ngi ni bu la ngeen gene ma bu la ngeen bàyyi fi fii en tout cas ral mom man adhéré daw dem ci ci jomay jappale ko ni tabax rew mi parce que rew bu liggéey rew bi rek moy ñor waaw man dama jappal no sponsor ko moom ab robel la won dana ñëw fii di yàq di saboté waaye li ma gis nii moom dëgg rek moo neex yàlla nuru na ma kuy ku bëgg réew mi te it doomu aadama yaakaar lay demee te it dëgg moom alalu yàlla la di leen jaajëfal waa kër Macky di leen bégg lu bare bari